maam bu jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram euh, président def ñu fi yebal euh, ñu ànd fi délégation bu am solo ñëw teewal ko ci bés bi muy màggalu Poroxaan euh, muy màggalu soxna maam jaara Bousso mi nga xam ne bi mooy waajuru Sëriñ Tuubaa Euh, président bi ñuy ñëw mu yebal ñu ne bu ñu ñëwee ñu gërëmal ko sëriñ bi sant ko ndax kenn ku ci nekk euh, fàttali ñu ko ndax yàggul lool euh, li nga xam ne lii moom la sëriñ bi waxoon président ne ko dama laa amel bor dama lay booleeg sëriñ Touba mu fayal ma la kon buñ génnee ci élection yi président am ci ndam bi mu am Euh, jaadu na mu dellusiwaat ci moom ne ko ñaan gi nga ñaan noonu nangu na ñaanalaat ñu lii nga xam ne lii ñu ngi koy ju dëgmal muy juróomi at yii di ñëw président falowaat ci Sénégal mu amee ko ci jàmm ci lu ko jik moom ak njabootam jik yëpp waa Sénégal donc loolu moo doon solo si tànk tànk yi tax ñu ñëw Euh, profito également ci occasion bi waxaat sëriñ bi ne ko président am na liggéey yoo xam ne yii sumbuloo nañu ko fii ci dëkk bi muy liggéey yu jëm ci euh, cité religieuse yi euh, te Porokhane desul ginnaaw muy wàll wu jëm ci salle de conférence parce que fii kenn ko ne xam na ne mbiru daara am na fi solo ndax daara yi nga xam ne yi waa kër maam jaara Bousso turandoom yee fi nekk te waxoon naa ko fi daaw lu mat junni ndongo nekk fi bariwul luñ koy gis donc euh, am na euh, ouvrage yu am solo yoo xam ne soxla nañ ko am na esplanade bu ñu fi def am na également liggéey yoo xam ne tàmbali nañ ko fi depuis daaw pour ñu mën a jéggi xur wi euh, loolu lépp muy liggéey yoo xam ne yi benn bu nekk mi ngi avancé ñu ñaan yàlla ñaan wax sëñ bi mu ñaanal président mu yeggale liggéey boobu rawatina liggéey yi nga xam ne aussi day tax sax ñu mën a jot si fii ci poroxaan te yaakaar naa ne ku fi ñëw ren xam ne ñëw bi gën a yomb kon loolu moo doon li nga xam ne lii moo doon kàddu gi sëriñ bi dégg na ko président te am ne ñaan yi la nangu woon bii tamit sa jaara nuy na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mam maaram